bay abdu doy nga mag ni yàlla ñuy fii jatuwa waaw Serigne Cheikh nee na sokoni won defa sa loxo ci safara kon mo def kwa chata xam ni kon jàmm rekk mooy cey doon mujjam Serigne Cheikh nee na su ma doon am taalibe benn laa cey am mooy Abdou mi xaw may atam lu ma neex te ko. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ci wàllu woowu. door nag liggéey bi ci tawféexu yàlla. doore ko itam ci mécanisation bi nga xamante ni al amin. mooy ki ko prôné woon te mooy. tool bi nañ koy ji ak machine nañ koy bay ak machine nañu koy bayaat ak machine nañu koy déqi ak machine waaye nañu koy bàcc ak machine yaakaar naa ne processus yooyu yëpp benn bu ci ne yàlla ngi dogal am na lu mu ci joxe ci tawféexam mhm. ñu di ko door di ko essayer mhm. pour wane rek boobu liggéey xam ni lu mën a nekk la ci réew mi mhm. donte la nag sax nag metti na donte la sax jafeñ na waaye yaakaar naa ni ñi samp tool bi li ñu daj ci tool bi nun dajagunu sax genn wàll nga wax nañ ni bi ñuy ñëw di ko di ko gor si amul woon yoon xamuñu fu ñu jëm dañuy topp di dox yenn saay bukki dog leen yenn saay e, till dog leen yenn saay sax ñuñ dul gis mu di jinne yi ñu ngi ànd ak ñoom ci liggéey bii ba ñu gor ko ba ñu ko goree dañuy ànd ak seen komankaar yore jaaseeg euh, gorukaay di gor yoon pour fàkk fu oto war a jaar kon wane na ni loolu ku ko door ku nekk coono ba yow yaay ki ko dund ñun dañuy ñëw rek di teg sunu loxo di barkeelu ci coono bi waaye ñoom gàcce ngaalaama ñoom ci seen taxawaay fii nga xamante ni wut si koom indiwu leen fi donte la koom dana fi feeñ waaye wut si ko wut indiwu leen fi ndax romb nañ fu ko gën a jàppandi romb nañ fu ko gën a eh, woyof romb nañ lu yaatoo yaatu ba yegg si fii kon mooy wax ni dafa amoon rek lu ñu bëggoon a def ñu tuddee projet de développement communautaire eh, eh, teg ko ci wàllu diine ak tariqa pour soññ njaboot gi ci taxawaay ndax himme doomu adama fu mu mënta yeggale borom dafa fekk ni himma jaa des itte baa des waaye itte ba mën na ko yéege fu mu bëgg a yegg loolu yaakaar naa ni bokk na ci seen tawféexu ñëw fii nga xamante ni ci biir Saalum Saalum it ubbil leen àndandook ñoom sëñ Abdoul Aziz wone na cofeelam bu baax a baax gannaaw Serigne Cheikh ci barab bi nga xamante ni woy nañ ko bàkk nañ ko njàmbaar yi fi jaar hmm. kenn ku ci ne def nga loo fi war a def ba tey tool bi mel nii dañuy ñaan yàlla na ko yàlla gën a mottali hmm. ñu doore nag di ko déqi ak euh, mbokki taalibe yi yàlla jàppandi ñu mën a ñëw hmm. ñi mënula ñëw sax faj yebal nañ seen yéene te dañoo wax ni ki mënta ñëw te yabal yéene mel na ni ak ki ñëw. dëgg la tabaarakallah ñëpp ñëw nañu. pour feddaliwaale seen kóllëre. Mm-hmm. ci ñoom ñi nga xamante ni ñoo sampoon fii. Mm-hmm. feddaliwaale seen kóllëre ci njabootu Serigne Babacar yëpp. Mm-hmm. feddali seen kóllëre ci njabootu Seydi Hadj yaakaar naa ni loolu su fekkee ne dañuy wax symbolique su fekkee ni am na symbolique tool bi. mooy le fait que ce rassemblement soit créé. pour que nit ñi mën fee ñëw xoolante waat delluwaat ci seeni i barabu bopp delluwaat it jànge ci mën cee nawit naweelu liggéey jëm ci la mu waxoon ni wa aqilun yakunu fi shay'ayni nee na moom Seydi Hadj Malick nee na ko xellu ñaar moo war a nekk sa itte sonne aw yiw booy yebal ci sa bàmmeel ngir ëllëg boo demee yiw woowu rek moo la fay jariñ waaye itam góorgóorlu sonn ngir dërëm nekk ci sa poche. ndax dërëm mooy sàmm ngor. te bu ko sàmmee amaana diine rafet amaana tariqa rafet amaana ngor. ngor gu sàmm mooy rafetal lépp. fa tabaarakallah ñoom nag loolu moo taxoon. ñu ñëw di ko def. li am solo rekk mooy wax leen ni ah ñun. bu fekkee ni mérite am na nun amunu mérite ñi sos lii ñoo am mérite waaye bu fekkee nit am na keneen kuñ cay teg mooy ñi fekk si kilifa yi ci lii ñoom ñoo am mérite bu ñuy defal omage ñooñu la ñuy defal omage te defe naa ku ñëw rek yéene boo indiwaale ci tool bi feeñal nga ko te yéene tuutiwul moom la Serigne Babacar Sy daan wax yéene tuutiwul nu mu toll rek baax na kenn ku nekk feeñal nga ko feeñal nga ko ci def def feeñal nga ko ci taxawaay feeñal nga ko ci dog sa itte ñëw àndandoo koog nun feeñal nga ko ci jël sa teraanga jox nu parce que xam nañ ni fii li fiy dajee lu toll ni luy daje Tiwaawan la te comme yàlla dogal na nit ñi mar nañu lépp lu bokk ci Tiwaawan boobaak léegi xew-xew yi fi jaar Covid beeg yeneen yi tax na daje yu bëri amul ca xadara ba bii di occasion ñoom ñëpp ñu ñëw pour rek feddalee ko seen wëllëre ak xadara Seydi Hadj tabaarakallah kon ñoom la ñuy sant ñaanal leen tànk yi ñu ñëwee ci tool bi yàlla na ñu ni delloo ànd ak jàmm ci yoon wi ba yegg fekk jàmm ci seeni dëkkuwaay gannaaw bi ñu fi bàyyee jàmm te ñaanal képp ku fi ñëw aajo boo fi indiwaale la boroom ñaanoon ci tool bi yàlla na la fekk si fajal la sa aajoy biir ak sa aajoy biti sa mébéti biir ak sa mébéti eh, eh, biti may kenn ku nekk mébét moo fi indiwaale daal yàlla na la ko yàlla fajal bég ci ñëpp nag jaajëfal ñëpp ci yéene yi ki nu ñi nu wuutu ñëpp jiital ci xalifa beeki rakkam ñaanal leen yàlla ñoom it yàlla na nu fi yàgg nu yàgg topp ci seen gannaaw mbokki taalibe yi ñëw mbokki jullit yi ñëw rawatina kilifa yi nga xamante ni ci ay ëttu diine la ñu jóge tudd naa leen léegi ci njëlbeen seen teewaay dafa nuy revigorer daf nuy gën a dëgëral daf nuy yokk fit daf nuy gën a ñemeloo fa tabarakallah ñu won leen ni حضر بين ينفك سي سين كل ريتي شيخ عبد العزيز سين جوفيل تي موم مو ماي نين دوك تاي يالا ام باي يال نونو ووتو ين فاير امين اك كيب كو خامتاني في دي ولر دي سوبي دي موك طالبي دي موك جوليت تبارك الله دي كولابوراتور تي ليغي فتبارك الله نييب غيس نان جزاكم الله عنا خير جزاكم الله عنا خير جزاكم الله عنا خير يلا يلا يا جلسه خواي thank you